salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ku nekk la jox sa wàcc waaye nuyu sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te wér histoire gàmm gi taarix la boo xam ne sëñ Basiru moo ko joxoon suñu waajur mu koy dundal fii ci Kaolack mu doonoon benn gàmmu goo xam ne moo fi nekkoon mu ko doom dundal ak magu muri yi fi nekkoon ba yàlla def bi mu fi nekkatul Euh, ñu jël gàmm gi ak képp kuy taalibe nekk ci diiwaan gi ñu koy dundal euh, loolu moo ko indi si ndigalu Baye ma Yacine Seck koy dundal ak famille yi nga xam ne ñoo nekk euh, fii si dëkk bi muy taalibe yi suñ mbokk taalibe yi suñ mbokk tijaan yi suñ mbokk xaadir yi démb rek je pense que yaakaar naa suñ mbokk xaadir yi muy waa kër tijaan yi ñoom seen manil def nañ ko euh, te loolu day wane ne xaadir tijaan murit lépp benn la ñu koy dundal dundin woo xam ne dundin wu bànneex la dundin wu neex la su xol euh, mag ñi nga xam ne dañ fi jógee suñ borom yóbbu leen si àjjanay fi dañ yor mouvement boo xam ne jug jot na ànd liggéey suñu réew avec président Serigne Lahat Seck Euh, si màggal gi am na benn déclaration boo xam ne defar naa ko ñu war a samp suñ ndënd si 2024 bi avec euh, suñu mouvement bi ñu ngi am ay parti politique boo xam ne ñu ngi waxtaan ak moom pour mun a jël récépissé bilan bi vraiment président jàmbaar la li mu war a def def na ko parce que je pense que réew mi ni ñi jox nañ ko ko pendant douze ans li mu war a def man maninam def na ko li mu war a liggéey liggéey na ko euh, yàlla def mu war a organiser ay élection yoo xam ne ay yu transparent yoo xam ne élection yoo xam ne moom di su bokk kon nag dañ koy ñaar mu doon élection yoo xam ne élection yu mucc ayib la élection jàmm lay doon nit ñi seen bëgg-bëgg rek la wax wante réew moo xam ne matuñ dix-huit millions d'habitants munoo jël sans treize candidats et je pense que duñ demee ba si kanam cent treize yooyu sax dina ko ëpp wante li ñuy xool rek dañuy xool ñi nga xam ne dañ si war a bokk te war nañ see bokk te je pense que am nañ capacité yor réew ñu boole leen si ku nekk na nga mënee suñ boroon defal la ko bu fekkee ne koo xam ne ku war a gañe mu gañe waaw loolu nag lu jafe la pour wax parce que bu njëkk à l'époque jamonoy Senghor da nga xam ne tey ñaar ñii ñooy dem du fekkee ne match de football la da nga xam ne ñaar ñii ñooy dem final jamono yi Abdou Diouf tim pare jamono yi Abdoulaye Wade pare wante ki fi nekk tey dafa toog pendant douze ans war a dem organiser ay trans euh, organiser ay élections yoo xam ne du su bokk dina jafe lool aujourd'hui munoo wax kenn koo xam ne aujourd'hui tey quatre mois de élection munoo wax kenn mooy favori wala kenn moo mooy gañ élection yi. xalaat bi ma si gis rek waxoon naa ko te dinaa ko waxaat. parce que président sëriñ la man lu ma doonee sa sëriñ yàlla def may dem bay bàyyi nga xëy jekki-jekki fekku ne da ngay dem doon euh, doon doon doon candidature je pense que dama yaakaar ne gëm-gëm bi nga xam ne moom nga amoon si président gëm-gëm boobu moo des nit doo ko gëmee du fekkee ne dana la bokkatuma da nga ko déglu ba wax la ne la euh, digal la fi nga jëm ak ki nga war a àndal. Mame booy Diao je le maa ngi koy saluer au passage c'est un frère euh, vraiment tey du ma ko doon conseiller dama koy wax mu mu delluwaat ci grand président parce que nit du fekkee ne nit ñi xamuñ la yàlla def li nga doon tey ki tax nga doon ko je pense que waroo am ak moom benn réeroo euh, je pense que dañ yàkkamti te bëgg doon président tim euh, wala bëgg bokk ci élection du tax. man ak sama kilifa ñuy am réeroo euh, Aliou Ngouille Ndiaye taalibe sëñ Mountakha la nit ku baax la vraiment musuma ko dégg si lenn alors je pense que teel na trop si moom euh, te élection lu ñuy préparé la Ablaye Daouda Diallo Ablaye Daouda Diallo c'est c'est xaritu président la je pense que am na ay yoo xam ne début bi amoon na rectifier na ko en tant que président je pense daal ñu ngi leen di ñaanal. ñoom ñëpp ñu delluwaat si ginnaaw président. je pense que mu gën a dee jegewaat population bi. parce que population sénégalais kenn moomu leen te du xaalis mooy politique te tollatuñ foo xam ne euh, nit ki da nga yor sa benn cinq mille francs ñoo jox ko pour jënd ko Sénégal dafa changé Sénégal bu njëkk ak Sénégal tey bokkuñ Sénégal carte mooy fal te population yi ñooy fal. te population bi képp koo xam ne jug nga tegu tegaloo leen benn programme boo xam ne programme boo xam ne mën na dugg seen bopp amul benn carte boo xam ne dinañ la ko wooteel kon nag dama koy ñaan mu gën a jegewaat population bi gën a liggéeyaat liggéey bi des na lu bëri loolu laa koy conseillé ko souvent léeg-léeg euh, waxu politiciens yi ñu ban di si ba di si wu parce que léeg-léeg c'est du jeu euh, da ngay gis loolu lépp ay jeu la léeg-léeg ay jeu lay doon quoi. en plus Ousmane Sonko ñi ngi ñaan président de la République vraiment moom la fi yàlla teg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax daraa jéggale sëñ Touba moom lañ gëm moom lañ yaakaar te vraiment daraa jéggale kon nag moom yàlla teg na ko pendant douze ans muy dem kon képp koo xam ne jàpp na tooñ na wala tooñul war na ko mun a jéggal te ñu koy ñaan tim du ñu koy ñaan te nit ki ñaan rek la mun a am mu bàyyi ko mu ñibbi këram en plus organiser ay élection yoo xam ne war na si mën a bokk parce que buur suñu borom moo koy fal parce que président de la République Macky Sall bi muy dem ak Ablaye Wade kenn mënut a gëm ne moom dina doon président de la République kon nag suñu borom moom mooy fal buur mooy fay mooy fal ku ko neex kon nag ñu ngi koy ñaan euh, vraiment en tant que président de la République comme dem na ba yàlla def jeexal na kon lépp rafet rek ginnaawam euh, képp koo xam ne tooñ na ko mu jégal ko. ku ko tooñu te mu jégal ko du fekkee ne réew mi la jàpp na moo ko tooñ réew mi yëpp jégal ko sama bëgg-bëgg la te vraiment samay mëbët la parce que am na ay initiative yu bëri am ay mëbët yu bëri si dëkk bi nga xam ne sama dëkk la te vraiment du ma sañoon tamit business ñëw ma yor ko liggéey fi liggéey bu rafet non sama relation moom amul benn problème maa ngi koy nuyu au passage c'est un grand frère mi ngi def liggéey bu rafet si dëkk bi euh, ça dépend nag nit ñu nit ku nekk ak gis-gisam parce que am na population Kaolack ñoo xam ne àndu ñoom ñoom parce que liggéey moo doon loo xam ne lu xaw a jafe la parce que doo xoolee pour la mu assainissement bi dafa des Kaolack vraiment ndox mi ak euh, mbalit mi vraiment parce que politiciens yi ñoom ñëpp benn kàddu la ñuy am fal leen ma ma liggéey fal leen ma mun naa def loolu si tout c'est di faux xam nga réew nit ki doo ko nax pour mu fal la le plus important ñuy wax loo xam ne population bi day doon loo xam ne lu am solo quoi parce que tey doon fal leen moom a liggéey te li may liggéey si un bout de temps laa koy def duñ la falee gisuñ ko population bi duñ la may dara dama koy wax mu gën a gën a góorgóorluwaat rek parce que li ko dese bëri na te Kaolack liñ soxla te mënuñ soo jot bëri na parce que vraiment dama koy yàgg di wax. Kaolack mooy dëkk bi nga xam ne vraiment maa ngi siy jégalu dëkk bi setul bëri na yoo te loolu dañ soxla maire boo xam ne day gën a jege askan wi gën a gën si def ay liggéey yoo xam ne liggéey yu am solo ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal vraiment li mu sumu ni suñu borom dimbalu ko si. loolu président Macky Sall vraiment def na si ay liggéey am solo am na autoroute boo xam ne ñu ngi koy defar wan tooguma fi pour wax bilan bi nga xam ne moom la Macky Sall defar je suis nag nit doo gisee lu rafet mën nga ko wax. ñu ngi koy ñaan autoroute bi tam balaa muy dem mu immigré ko parce que waa Kaolack soxla nañ ko. mooy élection man waxoon naa ko te dinaa ko waxaat parce que quatre mois de élection te vraiment gisaguñ lan loo xam ne lu taxaw la pour nga jàpp ne élection dina mën a am deux mille vingt quatre sax da lay xaw a jaaxal tuuti. est ce que Amadou Ba. pare na cent pour cent. c' est ça que je demande tout temps parce que nit doo xoolee lu ndaw ndaw nga am loo xam ne jàng ko si politique nga gis campagne ñu dem demee. ak ki nga xam ne dañ ko war a préparer mu yor réew ni muy comporté woo est-ce que Amadou il est prêt 100 pour cent xam nga. physiquement dafa am lu ma xaw a jaaxal tuuti parce que ki nga xam ne dafa pare 100 pour cent dafa am comportement boo xam ne noonu lay comporté tout le temps xam nga à doo gisee Macky Sall 6 mois wala 7 mois wala 1 an avant élection da nga def muy def ay tournée fu ne mu fay dem wante Amadou dafa mel ni candidat bi ñu ko jox dafa doon loo xam ne lu ko bett la. waaw parce que gisaguñ benn réaction boo xam ne vraiment depuis quatre mois de élection dafa dafa dafa dafa dafa gàtt trop ju jublu mouvement bi euh, mouvement jug jot na ànd liggéey suñu réew avec Serigne Lahat sec c'est un mouvement la wax ne vraiment c'est ils sont prêts euh, li ma ko waxoon rek pour euh, dem élection 2024 lu suñu bëgg-bëgg la suñuy mbëbët la parce que xam nañ ne réew mi tamit vraiment duñu ko joxoon dina doon réew moo xam ne itam vraiment dina changer waaw. Diaspora bi yàlla defoon na demoon naa fi def tournée tournée internationale xam naa incha allah bientôt nañ ma xaar naaw ñëwaat defaat fa li liggéey bu mucc ayib nañ ma xaar mouvement jug jot na ànd liggéey suñu réew avec sëñ la sëñ Lahad Seck mi ngi ñëw candidat la 2024. këru diine yi gàmm gi vraiment yabal naa fi samay ndaw te xam naa bëgg naa du gàmm gi jeexee. incha allah délégation yi ma àndoon yëpp fi ma fu ma yebaloon sama délégation dinaa fa ànd ak ñoom gën a waxtaan ak ñoom gën a waxtaan ak ñoom si réew mi. diine ji kenn mënul dem bàyyi diine muy diine chrétien muy diine l'islam parce que ñoom ñoo yor réew mi réew mi je pense que waxoon naa ko dinaa ko waxaat kër yu diine yëpp dañu war a toog waxtaan. képp koo xam ne dañ jàpp ne moo war a yor réew mi ñu toog waxtaan ak yow ci ay sart balaa ngay balaa ngay dem candidat sax dañu war a wax ak yow ba pare loolu laay ñaan këru diine yëpp. ñun benn jëwriñ lañu am sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg wér moom mooy xalifa général de kulu murit ñun ay ndaw lañ doon ndaw yoo xam ne dañoo bugg suñu réew pare pour jàppale suñu réew. te gëm na réew mi tamit jàpp nañu mun nañ ci dara euh, loolu moo tax ñu présenté suñu candidat euh, bëgg doon président 2024 te jàpp nañu réew mi duñ ma ko joxee euh, je pense que yaakaar naa war naa si mën a def ay soppite yu bëree bëri. ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp vraiment di ñaan suñu boroom ñu koy gàmmu ay ati at si barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñi nga xam ne dañoo ñëw wuy si ma fii si gàmmu Kaolack gi di sant ñëpp bàyyiwuñ kenn di ziare sama sama adjoint Bassirou Fall ak euh, sama frère yëpp duma ma rek nag danaa juum parce que ma si jiitoon nuyoo rek euh, sëñ Bass du ko xasee tudd rek tudd naa ñi si des ñëpp. di remercier sama équipe ñi ma àndal si liggéey bi ak ñi ma àndal si mouvement bi. di leen ñaanal si guddi yonent bi salaatu alayhi salaam suñu borom dimbali leen jàppale leen si barke yonent bi barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah